mais <laughs> mais <laughs> sëñ Cheikh sëñ Cheikh je ne savais pas que APR nii ngeen garaawee <laughs> sa waay maa ñëw sukk di ko supplier pour pour demander un truc toi tu étais présent et c'est toi qui m'a eh, qui a qui m'a qui a beaucoup insisté de moi ton patron veut me voir et c'était avant que je m'engage en politique c'était en 2013 mais doy na waar quoi ni nag gars yi bu nañu wàcc à ce niveau mais comme le témoin tu vas tu vas faire le témoignage le moment venu